néegu sëy moom sutura la sa rido bi ci buntu kër buntu néeg bi sax waru xam la nga nekkee ci wax ma laa na ngay génn ko wax xarit ko wax sa vie loolu yëpp ci jigéen ki la jigéen bu amee mat-mat góor war a delluwaat xam ne dañuy sëy surtout kuy sax waru la ki nga xam ne dafa nekk ci néegu sëy di sëy du sax bëgg day miin kon mën ak yow ak ki may seetaan yow moomu yaakaar ne bokkuloo te ni ñu seetaan yaa ngi si biir. xam nga couple bu communication bu manqué ci couple rek mm. day fee tey jii euh, bu mënuma mënuma am jëkkër boo xamante ne bu ñu gisantee duñu wax man maa ngi sëgg sama téléphone mi ngi sëgg ci ordinateur am suba bu boo xëyee da soxla wax. Mm. nit ki dafa am loo xamante ne sa dund la da nga ko soxla pour di ko dund mënoo nekk góor boo xamante ne doo leen waxtaan. tàmbalu tàmbalu la lenn lu dul moom pour moom yow yow yaay jabaram rek jeex na jabar turu jabar bi rek moo fa exister. parce que da ngay am sa jëkkër ku sëy kuy sëy warul ànd ku dul sëy parce que ñu kii ñuy dox booy sëy da nga xam ci am yi yëpp manque de communication la. suñu soxna yi nañu leen def ay sœur nañu leen def ay xarit nañu leen def ay complice. nañu fexe ba jiitu si ñoom yóbbu leen foo xam ne ku leen fa mën a yóbbooti ku war gaynde ba wàcc ko loo warati wari te nee nañ feeñ ci sëy daf nuyoo woon na ci ngoro ba dañ kaa fayu tey ji da am loo war a wax sa jëkkër mais nga génn wax ka sa xarit wala nga wax sa benn góor ji góor gi tamit noonu parce que góor ñi dañu jàpp ni jigéen ñi ñoo war a chaque jour di communiquer ak ñoom fi muy fi muy nii xam nañ ko sinon amul leneen loo xamante ne dina dina ko dina ko def ci yow loo lu lay war ne kii nii nga nekkal moom ngay dundal quoi mais euh, yow boo génnee tey par exemple gis koo xamante ne genre am mu mun a waxtaan wala genre daam mu mun a waxtaan mun mun mun di la di la toppatoo di la yow du da ngay fàtte ne benn moment am nga vie sa kër quoi da jàpp ne lii mooy sa vie. est-ce que loolu bu ñu demee ba sëy taxaw dañu ko war a arrêté. il faut il faut de continuer parce que digène miineel rek la am si digène day day nek xaritou tu day nek xaritou yayam day nek xaritou magam day xaritou je bu len ne sey man am si ñaari nit te xaritou du fa am. donc bu couple doxu rek bo day ce bi ci buntu sa waru xam la nga ci